relation Iran Israël foofu la ñu commencé parce que c'est ça l'actualité mm-hmm. yaakaar naa ne bu fekkee ne xool nga ko nga seetantal ko mm-hmm. di nga xam ne maanaam iraan yi ñoom muñ nañu mm. bi ñu reyee ki nga xam ne mooy Souleymane yi nekkoon euh, coordonnateur euh, des gardiens de la révolution en Irak. te mm-hmm. américains yi ñoo ko rey par euh, drone. Euh, reyaat nañu fi seen représentant bu nekk Hezbollah. ci mm-hmm. Liban. Mm-hmm. rey fi léegi nag bi mujj mooy bombardé ambassadu Iran ci Syrie. ci Syrie waaw ba nga xam ne juróom-ñaari nit dee ci. te ki nga xam ne moo nekkoon coordonnateur général des gardiens de la révolution Zahidi moom euh, dafa naqari Iran lool si deewam mhm. ndax kooku moo doon coordonné logistique beeg xam nga ne Iran day jàppale da da di jàppale Hamas mhm. di jàppale Hezbollah bi nekk Liban mhm. di jàppale Hezbollah bi nekk euh, Irak États-Unis am fa base si Syrie am base ci Irak base yu ndaw la gaa parce que ba États-Unis ba ñu daanelee Saddam Hussein la ñu fa am ay éléments yu nekk foofu forcé ko par force du seen négociation. Syrie itam c'est contre de djihadisme et le terrorisme que États-Unis am foofu base. Mhm. et États-Unis mhm. am base Bahreïn am base bi gën a rëy al Uwayda Eh, ci eh, Qatar Hambal Dahran bu nekk Arabie Saoudite mhm. ce qui veut dire que ñoom am nañu parapluie boo xamee ne bile ëmb na li nekk Moyen-Orient yëpp loolu lu ko waral yëpp Iran la mhm. lépp Iran la ndax ñeneen yi Iran daf di dëkk bu rëy am doole nekk di chiite ñeneen ñi nekk di sunnite te boo demee dans les pays du golfe dafa am pays yu bari yoo xam ne dafa bari euh, ay su soit minorité même majorité parfois comme par exemple Bahreïn la majorité est chiite mais le roi est sunnite mm-hmm. ñoom ñëpp dañu yaakaar ne maanaam kaaraange États-Unis moo na mën a tax ñu dund moo tax ñu nangu def ay base foofu et nekkati pays boo xamee ne bi dañu ko jël teg ko ci biir Moyen-Orient mu xàjjale pays arab yi ci histoire Bretagne moo ko def ba tey jii kenn ku nekk xam nu euh, juif yi ni ñu newee woon Europe nañu leen dàqee ñu leen reyee nañu leen làkkee et cetera ñoom itam dañu am dette boo mee dañ ko war a fay Israël mhm. Israël itam xam na ne mënul dund ci biir milieu boobu ñu ko teg lu dul par la guerre moo tax boo koy xool ba Israël soso ba léegi 1947 48 ba léegi boo koy xool def na ñetti guerre yoo xam ne moom ak arab yëpp la def na juróomi guerre yoo xam ne moom ak palestiniens yi la depuis 2002 ak léegi li nga xam ne yii la nag mooy survie ba mooy guerre looloo tax yaakaar naa ne bi nga xam ne Israël dafa yaatal front yi di xeex ak Liban sud Liban parce que même l'armée libanaise maintenant est en alerte parce que Israël dafa bombardé ba passé fi Hezbollah nekk euh, benn balda maanaam benn foyer bu bu nekk foofu boo xam ne bi de daf ko bombardé si biir Liban te bokkul ci lii Hezbollah di contrôler moo tax armée libanaise taxaw na Syrie noonu waaw loolu nag moo tax euh, dëgg la Iran ne dafay fayu ndax muñ na ñetti yoon ñuy rey ay ñi ko représenté ci gardien de la révolution te loolu dafa war a am limite mooy lii ñu rouge bi mu wax moo tax mu fayu si sànni ay euh, drone mm-hmm. ak ay missile vers israel ñi naa deux cent ba trois cent loolu nag Masolam depuis la première c'est c'est lancement de mutuelle le plus important du monde Masolam waaye itam foog nga xool dimension boobu mm-hmm. lan moo nekkoon objectif bi du wane doole mm-hmm. du caagin dem yàq jële ndax visé wul Tel Aviv visé wul Jérusalem mm-hmm. donc nee na ñaari site la ñu visé ci Israël ci site militaire la qui sont situés dans le désert de Negev ou bien qui sont situés vers Haïfa. donc ñaar yooyu la kenn deewu ci. ñi dee woon ci attaque israel pour l'Europe c'est normal. condamné wu ñu ko condamné bu xam ne bi la ñëpp mën nañu wax ne condamné nañ ko. xëy na ñaawlu ne am na ñu ko ñaawlu ci ñoom waaye li euh, Iran def. ñëpp ne Iran waru ko def condamné nañu ko solidarité avec Israël. Ouais. sécurité avec Israël. te Israël Gaza bi mu dugg nga xam ne 1200 personnes la ñu rayoon ci Israël mu ngi si mil 33 700 personnes léegi yu mu rey te léegi guerre amatu ba. Mm-hmm. li Israël yi def tuerie la duñ ko mën. tuerie la tout à fait waaw ñëw ñu ne ah kër gii de am na koom ne kii doomu ku bokk Hamas la ma bombardé rey ña fa nekk ñëpp yàq kër ga loolu duutu guerre l'Israël ne respecte pas droit de guerre ne respecte les crimes contre l'humanité ou génocide comme euh, Afrique du Sud euh, yóbbu ko ci cour internationale de justice. Mhm. loolu dafay wane ne sa dëgg-dëgg. Europe moo ko jàppale dëgg la États-Unis moo si jiitu te Euh, ku nekk xam ne taxawaayu États-Unis Israël c'est pas rationnel. Mm-hmm. c'est pas du c'est pas, c'est waaw c'est pas éthique non plus. Mm. parce que boo amee sax sa doom di ko jàppale di ko aar bu newul ci dëgg war nga ko oo wax ko ku nekk newul ci dëgg. Mm-hmm. def nañu lépp nag mais nee nañ ko bul fayu. Mm-hmm. ndax boo Iran nee na bu fayoo benn dana fayu mukk lii nga xam ne nag moo war a indi histoire boobu lu tax ñépp war si taxaw. pour mm-hmm. bañ a am li ñuy wax embrasement su régional moo di ñaari dëkk dëkk yi boo amuñu frontière. ñaari dëkk moo jaar seen diggante. Irak ak Jordanie. Mm-hmm. et même Palestine man nga wax sax ñetti dëkk. Mm-hmm. lii doyen euh, euh, Albert doon wax léegi. xam nga guerre léegi mooy guerre waa avion du guerre terrestre. ndax lu ñuy sànni foog mu traversé dëkk yooyu. ñooñu dañuy impliqué ñu bëgg ak ñu bañ. parce que li Jordan yi def démb jàppale ne Israël ci li ñu doon sànni mu jëm ci moom. ci ay drone ak ay missile jéem ko détourné jéem ko aw capté ko. pour mu bañ a àggee Israël xam nga loolu la mel ne ni yaa ngi jàppale Israël bu fekkee ne Israël def na ko mu jëm fële ndax dana am même taxawaay <laughs> loolu te foog nga beneen problème